ñu ngi leen ko doon wax tey jii li euh, histoire ak géographie benn école bu nekk fii ci Ndakaaru nekk ca Gibraltar moom la ñuy dem xooli ji tey ñu nar ci ànd ak Abdoulaye Diop Abdoulaye Diop ñu ngi lay nuyu di la ziar tey Abdoulaye fan la ñuy ànd ak yow tey. waaw ñu ngi leen di fay di leen euh, nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ci plateau bi ak euh, ñi nga xam ne ñu ngi seetaan euh, Télé Futurs Médias tey nag ñu ngi fii ci Gibraltar di nga gis ci sama ginnaaw école Nago Samb fii nag lañ ñëw école bi jéem a xam lan moo tax ñu tuddee école bi Nago Samb cosaanu tur bi moom lañ bëgg a xam dañuy dugg rek ci biir école bi laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk aca bismillah salaamaaleykum maman. salaamaaleykum salaam. yow yaa jaay yëfi maa ngi jaay yëfi njaayeen. lan rek la lay jaay. jus la ñuy jaay rek ak crème. Mm-hmm. nga nekk école Naago Samb kan mooy Naago Samb. Naago Samb ah Naago Samb de tur bu yàgg la fi de. Mm-hmm. waaw mi ngi dëkk fii centenaire. Mm-hmm. dafa gaañu na quoi. kon euh, loolu moo tax ñu tuddee ko moo tax ñu tuddee école Naago Samb. dégg la kon xaaral ma laaj xale yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk. noo def. maa ngi fi. yow noo tudd. Fatima. Fatima nan. Diouf. ban classe ngay def. C2. école bi nga nekk nu mu tudd. Naago Samb. kan mooy Naago Samb. ah mooy école bi. mooy école bi kan moo xam Naago Samb ci yéen. man kan kan kan. Eh, taxaw taxaw taxaw taxaw waaw waxal noppi leen noppi leen waxal. El Hadj Naago Samba. ah mooy mooy mooy mooy mooy mooy directeur moom moom école bi. moom moom école bi. waaw El moom la ñu. tuddee bi. moom la ñu tuddee bi. lu tax ñu tuddee ko école bi. parce que dafa baax. xam naa bi ñu laajee xale yi ba pare dañu ñëw rek ci bureau directeur tur bi naka la. Euh, man Mouhamadou Siraji Ba laa tudd. man maay euh, directeur école El Hadj Nago Samb. ñu bëggoon a xam El Hadj Nago Samb euh, ñu tuddee école bii nii moom lañ doon bëgg xam rek lu tax ñu tuddee ko école bi. waaw El Hadj Nangu Samb daanaka sa si figure historique Gibraltar la ak Dakar donc euh, en principe euh, man bi ma fi ñëw pense que yàggu moo fi parce que maa ngi fi ñëw daaw et j'ai pas eu l'occasion vraiment de rencontrer la famille pour vraiment xam kan mooy Nangu Samb réellement parce que ay diir rek laa ci dégg te xam naa ne information yi dafa des loo xam ne war naa gis famille pour mun ko compléter mais xam naa ne figure la boo xam ne exemplaire la ci ci Gibraltar parce que en général bu ñu choisir turu nit jox ko école rek parce que école c'est un c'est un lieu d'éducation donc képp ku ci tuddee nit rek xam ma ni c'est un exemple donc euh, loolu moo waral ma xam ne kon kooku nit ku baax la nit ku nit ku jar jar jar jar taxaw la daal ku jar a xam ne aussi. jërëjëf directeur xam naa comme ni mu ko waxee rek kon il faut ñu dem ci famille bi laaj leen euh, ñu ñu leeral ñu rek euh, histoire kan mooy Naagu Samb kon acca ñu dem. waaw waxoon nañ leen ko ñu ngi fii ci famille euh, El Hadji Nago Samb ak ki nga xam ni moom mooy euh, Baye monsieur Touré nga xam ni moom moom moo ko yar nijaay la ci moom ñu ñëw rek pour laaj ko euh, li nga xam ni moom mooy kan mooy Nago Samb. waaw daanaka ci gàttal rek Nago Samb d'abord kan mooy Nago Samb Nago Samb mu ngi gane àdduna ci le le juillet. 1914 à Saint-Louis du Sénégal Baye Mousse Samb la tuddoon papa man moom suma mooy suma turandoo suma maam la suma turandoo yaayam Marie Seck Cissé ñoom ñëpp waa Ndar lañu waaw ban métier la jàng menuiserie menuiserie ébénisterie waaw mënoon na sax yi yeneen menuiserie yëpp mais daanaka ébénisterie la daan gën a évoluer waaw te macha allah moo amoon ci ndam trop nag am ci connaissance boo xam ne en sax en passant que même màggalu Touba yi temps boobu ci jamono sëñ Fallou tribune yooyu ñu daan monté moom moo daan dem avec son équipe toog fa pendant un mois pour préparer màggal gi bu màggal gi pare bu màggal gi pare ba pare mu toogaat encore un mois pour démonter tribune yi pour indiwaat leen Dakar ba demoon na ci sax ba nga xam ne sëñ Fallou xaritam la woon. waaw mënuloon wax sax sëñ Fallou mënu wax wax naago dafa daan wax nangoo. lan moo tax ñu tuddee ko école bi ak kañ lañ ko tuddee école bi. bi li tax ñu tuddee ko ko. mooy d'abord ay jëf yi mu def ci école bi nekk ba dem ba nekk président des parents d'élèves xaalis bi buñ ko buñ ko xaymawaan xaalis bi daf koy dañ ko daf koy joxe ni mu ni mu ko jotee dara du manqué bu liggéey amee ci école bi moom mooy laxasaayu indi ay ouvriem ñi dem liggéey école bi te xaalisam la ciy def waaw du ci du jël ci xaalisu association bi dëggu ni mu duggoo woon noonu ak honnêteté boobu mu amoon loolu bekk na ci yenn ci yi nga xam ne moo taxoon ñu euh, nommé ko euh, justement ñu jox ko ñu nommé ko le parrain de l'école waaw loolu moo waral loolu bokk na ci li ko waral daal jub jubam dëggoom pastéefam ak liggéey bu mu liggéey ci école bi def ko ci école bi luy jëriñ école bi. kañ lañ ko tuddee école bi. kañ lañ ko tuddee école bi ñu ko tuddee en 1985. Mm-hmm. à titre posthume nag. Mm-hmm. ñu leeral ci loolu quand même quoi à titre posthume. mi ngi génn àdduna moom mi Ah, euh, le le 8 juin 1983. xam naa ñu ngi koy jaajëfal baay Moussa Touré di jaajëfal aussi famille bi yëpp nga xam ni tey ñu ngi teew rek euh, ñu doon waxtaanee euh, El Hadj Naago Samb nga xam ni mi ngi bawoo fëlee ca Ndar juddoo fa ci 1914 génn àdduna ci 1983 nga xam ne moom lañ tuddee école bi tey moom lañ leen andiloon ci De quoi est di leen jox dig daje ba beneen incha allah jërëjëf. jërëjëf Abdoulaye Diop Thierno Laurent Mendy ak euh, Khadim Ndiaye Alaaji Malick euh, moom Alaaji Naago Samb mu dëddoo àdduna def na 40 ans waaye encore une fois li ñuy rappelé mooy euh, école yi nga xam ne moom la ñuy tuddee xale yi ñu def le tout ba xale yi mën a xam ñan lañu fan la ñu cosaanoo li ñu def ci réew mi ba tax ñu dippee leen bërëb boobu. waaw am na solo. Hmm. keroog rek école bi ñu jëloon. Euh, ñi ngi ci doon wax. Mm. Clémenceau euh, muy ex Clémenceau. Mm. Euh, ko tuddee xale yi kenn xamu ko ci. Mm-hmm. maa ngi doon wax également ci vétusté école bi màggat gi mu màggat ak lu ñu mel mais école bi nga xam ni moom moo nekk ci commune Médina. Mm-hmm. wax dëgg yàlla le maire Bamba Fall. Euh, dans le cadre de la coopération publique privée def na rénové woon nañu ko. Hmm. ba mu defoon fi sax inauguration à grande pompe avec euh, euh l'ancien préfet Jack Bauer ah Djibril euh, Diallo ak. préfet de sous-préfet Dakar sous-préfet voilà sous-préfet Dakar. voilà mi ngi fa te woon fa teewoon. Hmm. Soham El Wardini teewoon foofu ñu defoon inauguration à grande pompe. Hmm. parce que l'école était remise à neuf ba ñu am sax benn salle informatique ak yu mel noonu defar école bi ba mu ni boy loolu moom ñu ngi ci féliciter le maire Bamba Fall mais beneen bi ci des mooy bu ñu débat débaptiser c'est bien tuddee ko nit ku nga xamante ni nii dafa am jaar-jaar am njariñ ci askan bi nekk exemple dafa am solo. parce que mm-hmm. royuwaay moo tax ñuy tuddee nit. Mm-hmm. mais ki ñu tuddee. xale yi pour ñu xam ko il faut que mu am li ñuy tuddee euh, euh, journée du parrain loolu daf daan am journée bu nga mm-hmm. xam ne dañuy euh, jël école bi jagleel ko parrain bi famille am toog ñëpp toog ñu wax xale yi kan la tuddee école bi hmm. bu ko defee ñoom it ñu xam ko ñun dañ daan def éducation civique donc wala euh, éducation morale daan ñu am yu nga xam ni hmm. moom lañ ñu daan inculquer pour ah. ñu am benn benn benn benn savoir bi am benn hmm. am benn culture générale bi mais malheureusement xale yi léegi dañuy ñëw rek école naa ko saam laa jànge <laughs> luy école bi mu ne moom lañ ko tuddee <laughs> loolu rek la ci xam <laughs> mais c'est pas sa faute c'est pas la faute ko sargal di ko wax xale yi lan moo tax ñu tuddee ko ko. dépatiser bi c'est bien waaye bu ñu tuddee nit. comme li ñu def nii tubaab bi fi nekkoon. ñu jëlee ko fi tuddee ko suñu bopp loolu moom dañ ciy tàcc. c'est ça merci beaucoup El Hadj Malick. Ablaye Cissé <laughs> Ablaye Cissé yaa ngi buruxlu Ablaye Cissé loo def mbaa yaa ngi ci jàmm maa ngi lay ziar bu baax maa ngi lay ziar bu baax Ablaye dina dalal.